gëm sa réew bëgg sa réew nangoo liggéey fas yéene sellal sa réew jëm ca kanam loolu it ñu ciy def innovation yu am yu am solo kon nag ñu ngi leen gën a dénk ngeen gën bàyyi xel daara ca xam ne daara rek mooy li nga xam ne ah moo mën a dimbale nit ki ci addunam ak ci alaaxiram ci ngeen gën a bàyyi xel alxuraan ca xam ne mooy ndam li mooy ndam li mat ndam fii ci àdduna ëllëg ci Euh, kon bu loolu jàll itam am na ñetti xale yoo xam it ñoom euh, bokk nañ ci gunge xale yi nga xam ne ñoo mokkal xëy na ñoom àggaguñ ci waxtu téere bi sunu bi waaye xatbu nañ ko ba amoon nañ yaakaar ne balaa yàgg léegi incha allah danañ mën a def ni seen borom yi ñoom it ñu gunge leen ubbi leen ngir ñu mën a euh, waxtu ñoom itam bu la weesoo itam xale yi nga xam ne ñooy xale daara yi mel na ne ba léegi gisaguñu leen waaye war nañoo dugg si léegi ak seen yëf yoo xam ne yu am solo la seen maaj bàkk bàkk turu borom bi subhaanahu wa bu doon weesoo itam euh, am na ay xitaab yoo xam ne moo fi war a jàll ay discours lu mel ne daara ji tamit dafa amaale euh, xismu taalim maanaam amaale ne école boo xam ne day fi jàngale français di fi jàngale arab di jàng itam euh, jardin moom ngeen gis na ñu to ñooñu itam dañ wane dara ci li ñu jot a jàngal kon français bi danañ fi indi seen seen seen discours waaye alxuraan euh, olof itam danañ ko tekki ci olof waaye anglais itam comme que euh, daara ji léegi dafa am sixième na ba sixième daaw fii doon nañu ko présenté di leen wan daara ji li am mooy. cycle primaire bi rek di ko jàng ci ñetti at xale yu bëree bëri jaar fii ba am seen diplôme waaye ñu gis ne loolu doyul ñu fas yéene kon jàll ba fas ak àgg terminal waaye ñu ngi commencé année bi jàll ci sixième di ñaan mu gën a jëm ca kanam. ñu woo benn xale rek ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo war a gunge xale yi mokkal war a tare ren kenn ci ñoom mi ngi tudd euh, mu ngi tudd soxna Madame Kandji.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 tere léegi kenn la ci ñi nga xam ne ñooy gunge xale yi wax dëgg yàlla ñaan am na solo ñu ngi lay jërëjëfal dadaa muy ak yi ñu fàttali leen ba tey ne daal Tanzil boobu am na benn daara boo xam ne ay góor donc ñoo koy jànge di nekk fii ci parcelle waaye ubbi na beneen daara yi boo xam ne ay jigéen donc ñoo koy jànge nekk fële ci parcelle unité tudd Fatimatu Zahra euh, ba ñu def gi am na beneen bu nekk buur tudd Serigne Salih Mbacké kon ñu tuddoo beneen xale bi di toog di soxna Fatimatu Fatih dafa bokk ci ñi nga xam ne ñooy gunge xale yi ñu woo ko kon bu jegee mooy egsi bi jàngal ñu dara ci alxuraan bismillahi rahmani rahim laa uqsimu bi القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عزامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلغ البصر وغصف الحمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما صدق الله العظيم kon kooku kenn la ci ñi nga xam ne ñooy gunge xale yi nga xam na yi ñooy gunge ni ki ci mujj bu defee nag daal fas yéene jublu ci liggéey bi nag rahim alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤ الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى muflixuun sadaqallaahul aziim mel na ne am na ñu fi bàyyi ko léegi yor seen drapeau di maaj génn baas bi amaana ku ne gis da nga xaw a saxat dem ci fan lañ war a jëm waaye mel na ne VIP yi nga xam ne ñoo war a bis bi ñi wattu tere yàlla bi ñoom lañuy jëli noonu ñoom nag faaw dañ leen di jëli waaw dañ leen di jëli tatagal leen dalal leen ndax ñoo war a def ñoo war ci yàlla subhanahu wa taala kon nag ñu taaxal leen ci xam ne ñu ngi dugg si tey Sénégal ñi ngi noonu waaye ma teg kañ ñi Euh, lii de am na solo lool neex na lool xam naa ne ñu fi dajee ñëpp seen xol bég na ñëpp kontaan nañ ci manifestation bu am solo bi waaye nag mel na ne gisagu leen dara ndax xale yi liñ war a wane dëggantaan wane guñ ko. kon suñu paxtaan bu fekkante ne soriwul mu jege si bu defee ñu jox ko dara ci waxtu mu def ay démonstration ak. waa rooba bi ñoom tamit ci ci ci wala takbir ñoo xam ne xëy na sax waaw ay autorité yu mag a yoo xam ne daanaka ay autorités yi xaw na leen xaw na jaaxal kon nag wax dëgg yàlla day day day day firndeel rek eh, ndam li nga xam ne alxuraan mi ngi koy am ndam nga xam ne eh, réew mi ñu dëkke alxuraan moo fi moo fi mosoon te mooy mosoon kon xam ne ginnaawal na ko da ngay faw يحسب أن ماله أهلده إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يا نكتب صلى الله tabax nañ lislaam ci juróomi ponk seede nañ amul benn buur war a dul yàlla te Muhammad yàlla ko yónni taxawal juróom joxe asaka woor weeti koor aji Makka takbir mu indi benn xale mu jàng bu ko defee xale yi daal ñoo ko bi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 ما أنا ألهم له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة الخطب في ديدها خبر من مسد صدق الله العظيم تكبير الله أكبر ليلة في قريش إلى بر رضا الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع sallallahu sayyidana muhammadan rasulan fa'allamana dinal islami wadana ilal khairi wa abadana anisari yàlla yónni na sini sangu muhammad mu dool yenent muhammad ñu diine islam mu jubal ñu suluba mu seetal ñu si lu bon. ñu comprendre xam ne noonu rek la war a la nga daal tàmbale ak xale yi taala wa mbokki jullit ñi mbokk yu tedd yi leen di ziyaara ci weer wu tedd wii ne di shahru ramadan fukki fan yi mujj yi nga xam ne moom la suñ boroom digee ci ne ci lay goreel jaamam ñi ci sawara yan lañ ca bokk di ko ñaantam ñaari xaaj yi jiitu yëpp muy awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira yi nga xam ne ñoo jàng yàlla lañ suñu boroom bindal ñu ci yooyu di ziyaara bu baax suñu sëriñ suñu mudir sëriñ Xaadim Njaay di ñaan suñu boroom sàmmal ñu ko guddal fanam ba naal yi am solo yi mu naalal islaam suñu boroom may ko mu yàggale ko ci sagoom ak mbooleem ñi nekk ci ronam di ko jàppale pour njëkkanteeg temps bi rek dañuy ñëw ci suñu mbokk yi tedd yi nga xam ne ñoom ñoo yenu alquran nekk ci nga xam ne ñoom la suñu boroom di xool ci jamono ba rus waa jamono ndax ku ne xam na mooy yàlla yi ni mu bëree lépp lu alagoon nit ñu wees woon jamono yi tey jii agsi nañu fa suñ boroom di rus ñooñ alxuraan rek mooy xale yi nga xam ne amuñu bàkkaar di jóg ci bu nit ñi di nelaw di gontu di xëy ci téere bi yàlla bi ñu ñëpp xam nañu loolu rek moom mooy li mën a fay meru suñu boroom kon gone yooyu ñu jàppale ay gone tey ñu ay mag ñu am solo ñoom ñoo moom bis bu tedd bi di ñaan suñu boroom sàmm leen dëgëral leen daf leen magi lislaam daf leen mag ñu am ñam te barkeel seen wéyjur yi nga xam ne am nañu ak ndimbal ak tawfiq ba yóbbu seeni doom yooyu ci fi ñu ko war a yóbbu te xam ne incha allahu taala du ngeen ko rëcc ndax mas na maa dégg ci suñu xaadim mu wax ne am na mag mu waxoon ne sa doom bis boo baa bul ko bàyyiloo dara boo ne ko wut siinit bul ko seen bul seenu ci moom dara boo ne ko wut miim bul ko miimal dara loolu nag takk-takk la boo xam ne buñ ko yaatalee rek daañoo xam ne jàngal sa doom alquran rek mooy rawukaay bi su ko defee dañuy tàmbali incha allah ci suñu dongo bi jiitu xale yi ñu ngi toll ci juróom-ñetti dongo euh, ak euh, ki jiitu mooy Yuusuf Bey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 كاتبا فريان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تك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 فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف صدق الله العظيم macha allah sëriñ Youssouf day yan mu rafet moom ñi ñaan suñu borom subhanahu wa taala def la mag mu am solo ñi ñaan xam-xam bu yaatu topp ci alxuraan yi da nga jëfe ko incha allah ñu ñaan suñu borom fay sa jàngalekat ka fay tamit say waajur yi nga xam ne ñoo la muñ da nga mën a àggal alxuraan. di tugg ci beneen xale bu ñuy woo muy sëriñ Xaadim Njaay bokk ci yi mu wattu alxuraan karim sëriñ Xaadim mi ngi gën a àdduna ci le premier dixième mois 2006 ci Touba.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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ ما شاء الله ma sha allah sëriñ Xaadim ci jàng mu neex moomu waaye lu yore gudd ndax yéen nga waat ba tey ci alxuraan incha allah.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 وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون صدق الله العظيم ما شاء الله jërëjëf Serigne Khadim Ndiaye ci jàng mu am solo moomu dañuy dëkkuwaat ci beneen dongo Serigne Bachirou Mbow dëkk mi ngi juddu le 22 quatre mois 2005 dëkk di Jawaay wajuram bu góor tudd Serigne Magu Mbow wajuram bu jigéen tudd Soxna Jëmu Caam sëñ bi ñu bëgg it nga tariñu alquran comme ni say morom bismillahi arrahmani arrahim وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياك يرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون صدق الله العظيم بشير ومنذر ولقد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم بارك الله Cheikh Bachir Mbow yàlla suñ boroom barkeel téere bi ci yow yàlla suñ boroom fay la fay say waajur waaye fay jàngalekat bi nga xam ne moo la góorgóorlu ci yow ok jërëjëf jazakumullah sëñ Mouhamed Yadaali ci liggéey bu am solo boobu ngeen ko liggéey léegi di jaajëfal xale yi tamit ci tamit bu am solo boobu dañu woo xale bi nga xam ne moo ñu war a defal euh, discours arab bi tudd euh, sëñ Mahamadul Amin Bara Fati الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على المعلم الأول النبي أمي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين الصادة والسيدات ضيوفنا الكرام أحييكم بتحية الإسلام xaa'ilan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu يسعدني بأن أقف أمامكم اليوم لأتحدث إليكم أهمية التربية الإسلامية إن التربية الإسلامية لها أهمية قاسة في الإصلاح الفرد المسلم وإعداده حتى يصبح ذا إيمان صادق وعلم نافع وعمل صالح وخلق قوي فيكون بذلك لبنة من اللبنات التي يبنى بها المجتمع الإسلامي الصالح وتبدأ هذه التربية في اختيار الأم صالح للوالد وإعطائه isman xasanan baada dabxin saati lahu fi yowmin haqiqatin wa taalimihi alquran alkarim walculuum alsharciya liyacrifa rabbahu wa yacbudahu xaqa alcibadat tasdiqan liqawlihi taala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإذا استثقل الولد من ينابع هذه التربية fa mimma la budda an yabtaida an altaqlid alama lilyahud walnasara alladina kafaru wa ashraku billah wa yattabia huda allah wa yaqtadiya bisunnati xayri alanam wa yattaxida taabiin wa awliyaa allahi xudwatan xasanatan lahu wa sayakunu hada alwaladu min addaajin min almasaaib facebook وويلات الواتساب وتبيات سبكلة العنكبوت إنترنت وقبل الختام أذكركم بأن المراكز تحفيظ القرآن الكريم تلعب دورها بشكل جيد في تربية النشء المسلم تربية الإسلامية ومن أجل, ومن أجل هذا أدعوكم أن تبادروا بإرسال أولادكم وبناتكم إلى هذه المركز وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح للإسلام وللمسلمين عاصى الإسلام وعاص معها الدار تنزيل وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته loo xam ne man mi seedalaat moom lii bi muy ñëw ci daara ji boo ne ko loo tudd du la tontu wala ko noonu tudd ci olof du la tontu man seet laa ci yàlla dimbale ko mu ne ko mot jàngi dem ba ci biir ña nga xam ne ñoo nàmp loola xëy na mu taxaw di leen tekki loola ci seen langue te gën leen koo dégg ci kii man la moom it ñu koy présenté mi ngi dëkk ca dëkk ya a sori ngi dëkk ba Kerawaan moom it euh, sëriñ ñu nit ku baax kon dafa ne dañuy jàllaat ci beneen xale bi ci topp war ñu indi tamit discours français moom itam bu fekkante ne mu mën a jege si. Chers parents, chers invités, après avoir loué le Mohammed, paix sur lui, notre référence, nous vous adressons nos Cependant, par ma modeste personne, je voudrais rappeler à mes chers frères musulmans l'importance de l'éducation en islam. Le prophète, paix celui disait Le meilleur des êtres est celui qui est de vertu, donc beauté, richesse, noblesse exclue. Et une bonne éducation Nous obtient quand s'y va la charia et la sunna. L'éducateur est le meilleur exemple pour celui qui l'éduque. L'heure est grave. Cessons de copier sur les non-musulmans, alors que nous avons de grands maîtres spirituels au Sénégal. On a souvent tendance à dire au Sénégal, pour élever du bétail, un seul bâton suffit. et pour les humains, il nous faut plaisir. Je regrette la charia, encore la charia. Dis-moi quel jeune tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Je vous remercie. xam naa it ki nga xam ne mooy wax ci turu euh, euh, ressortissants yi. ñu ci daara joo pare xam naa mu mu jege si. waaw man léegi sàkk moom mu mën a jege عليكم ok jërëjëf. mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Xaadim njaay waaye di leen nuyu ci njiital ñi jaaroon ci daara ji te nekkatuñ fi mën nañoo wax ne te féeteetuñ fi boog waaye ñu ngi fi ba tey ndax ñu ngi tàbbal seeni xalaat ñu ngi am ay yéene yu kawe njort te fas yéene ko def. ci njiital Serigne Mahmoudan Fall nga xam ne ci seen kàddu laay waxee xam naa euh, seen yéene ak seen yitte ju rëy moo tax mënuñu lii ñu di ma ko defloo waaye maa ci gën a lot bu ko defee euh, lu njëkk li mooy dama koy tàmbalee ci mbokki donge yi fi nekk nga xam ne ñoo fi nekk may leen di ñaan ngeen góor góorlu te def yitte ci li ngeen di sàkku te xam ne lii ngeen nekk mooy dëgg Euh, ñaareel bi mooy ñi féete ndaw nañuy jox cër ñi leen mag ñi leen mag it saasu ne ñu di leen taxawu te di leen jàppale loolu nag am na ñu ne ci daara ji ñoo xam ne ñu ngi ciy def taxawaay yu solo ci njiital Serigne Fallou taxawaay bu bu bu ama amu solo ñu ngi koy bàyyi xel ñu ngi ñaan suñu boroom euh, ci kàttanu suñu boroom li ngeen fi sàkk ngeen am ko te ngeen xam ne lii ngeen nekk mooy dëgg bu leen am benn complex ci li ngeen nekk euh, ñetteel bi ñaareel mooy mu jëm ci parents d'élèves yi nga xam ne ñoom la fi seen doom nekk ñu gën a góor góorgóorlu ci jàppale dongo yi fi nekk ci fànn yëpp nag te xam ne amuñu doom ju gën a kawe doom ji nekk ci daara ji ndax boo lëgee bu ñu ndamoowut ki nekk ci daara ji mënuñoo ndamoo keneen kii mooy seenub sakk ñii ne ci daara ji ñooy seeni sakk ngeen bàyyi xel ci loolu baax a baax te bàyyi leen ñu mokkal Alxuraan bokk na ci li gën a metti jàngalekat mooy ngay jàngal gone ba mu sori lool walla ba mu wàccee nga ne ko poxet jële ko fa yóbbu ko ci leneen loolu moom bokk na ci li gën a naqari jàngalekat yi waaye yaakaar naa ne gone bi gone gi nga def noonu moom mënta xam loolu ca jamono jooju day bëgg waaye bu màggee ba doon responsable rek bu la mënoon a rey dana rey baa mu sàkkal la pexe ndax amut kenn koo xam ne teew na ci jataay bi ci jaar-jaaram te rëccuwu ci lu mu waroon a def ca jamono jooju te def ko amut kenn nag ci ñun ñëpp bu ñu sañoon dañuy mokkal Alxuraan am yar bu baax bi nga xam ne moom lañu ñu yonent bi jàngal ak sëriñ bi waaye ngeen xam ne am ngeen taxawaay boo leen bu leen war ci daara ji yéen ñi jaaroon ci daara bi loolu nag bi ci njëkk te gënal ci seen mooy ginnaaw bi ngeen jàngee arxuwaan ba mokkal ko bott ko ba ne ci barab yi ngeen ni eh, nekk li ci njëkk bokk na ci taxawu ko loolu moom suñu wàllu bopp la ndax mënul ko boppam noo ko war a xam te jéem koo def waaye li nga xam ne moom bëgg na ko tamit ab sagam mooy na ngeen doolee góorgóorlu ba bu mu leen dégg ci dara lu ñuy tere yàqu-yàqu tey jamono jii xew rek rek bu ñu leen ci dégg ngeen sagale ko loolu loolu loolu moom loolu rek ngeen ko mën a dimbalee dama yeb sagan ngeen di bàyyi xel ci daara ji di nemmeeku xale yi di nemmeeku Serigne Khadim te def seen xel ak seen yitte ci projet yi nga xam ne Serigne Khadim da ko taxawal xam naa mbokk yi li ñu ma yónni ci kàddu gën naa kawee loolu fuuf waaye euh, man damaa xaw a tëree wax ci mbooloo rawatina wax ci samay kilifa nag nga xam ne kerse gi dafa xaw a lépp daal lu ci rafet na xam na ñoom yéene woon nañ kàddu yëpp loolu lu ci dëngit ngeen xam ne ci sama matadi la asalaamaaleykum wa rahmatullah Dear fathers, mothers, brothers, sisters, and honorable guests, I'm introducing to you the most marvelous and peaceful greeting, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi I am thanking to the Almighty God, Allah, who has given us the capacity and the ability to attend Darul Tanzil School Religious 17th, edition lecture. Today, it's a great pleasure and an to take part of the film, which is the Islamic education. As you may know, education is the most powerful weapon that can be to change the world. Thus, the Islamic education is changing the world in the positive way, in human behaviors, attitude, etc. Therefore, some quality must be acquired by the teacher, the student, and the honorable and the administration members. The teacher, the teachers has not to limit himself only in his teaching role. He must be also an education, a pedagogue, and be respectful as far as the role of the student is concerned. The word must come one time, respect teachers, and learn lesson. And finally, The administration members who are the most important personnel of the school must get the devotion and the determination and set some role for the good unfolding of the school. I can't end my speech without thanking and everlasting thanks to our Honorable Headmaster, Imam and Ustaz Ibrahim Cham to their disponibility in the school. And finally, I'm giving a big thank to our, standing teachers in their capacities, in their pedagogical way of teaching. Thank a for you all. Thanks, MashaAllah. Uh, uh, alhamdulillah. xanaa ñu tënk ko rek parce que olof bi waajoo ko woon man maa ko bindaloon discours bi euh, juste da doon dañ doon wax ci thème bi muy éducation islamique ci commencement bi mu nuyoo ne maa ngi nuyoo nuyoo bu gën a sell te tey di nuyoo boo xamante ne benn nuyoo waliis waliisul doy ko muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa euh, gannaaw loolu aussi wax na ci importance éducation islamique parce que yéen ñëpp nekk fii xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne ah, xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu waaw ki gën si yéen mooy ki nga xamante ne dafa jàngal qur'an ba pare di ko jàngale te bu ñu waxee éducation islamique alqur'an moom mooy ndeyu éducation yi waaw donc raison pour laquelle ñu euh, tënku ci lool ci ginnaaw loolu aussi moo ngi wax éducation islamique nan lay defaree doomu aadama bi ci ki nga xamante ne day jàngale ci nga xamante ne dañ koy jàngal ci ki nga xamante ne aussi moom moo yor administration école muy directeur bi euh, bi mu ñëwee ci élève bi muy wane ne éducation islamique bu defaree élève bi élève bi day mel ni ki nga xamante ne roykaay lay doon miroir lay doon ci yenn moromu élève mi par rapport rek ñeneen ñeneen ñi li ñuy jàng bu ñëwee ci wàll ki nga xamante ne moom mooy jàngale. dina nekk koo xamante ne day teey am ko xam nekk koo xamante ne day am yar macha allah xam aussi fi muy yem ak élève am yi troisièmement mooy ki nga xamante ne moo yor bi macha allah ñoom xam nañ euh, diine xam nañ li ñu warloo ak ñi nga xamante ne ñoom lañ seqal mbir te ñoo ngi koy jaaral ci yoon ci kaw loolu la tënk discours bi ci ginnaaw loolu bi nga koy jeexal moo ngi sant sant bu amul dayo kii di Serigne Xaarim Ndiaye ma xamante ne moom mooy borom école bi euh, di sant aussi Ibrahim Thiam nga xamante ne moom mooy directeur des études macha allah ci taxawaayam. di sant aussi prof yi nga xamante ne ñoom ñooy jàngale ci wàll mel ni prof anglais français euh, euh, histoire géo SVT Demet di sant ñëpp di wax ne aussi ñoo ngi leen di wax welcome faddal mashkuran macha allah.